Maham Wardini et Barthélémy Diaz. oui si j'ai dit la coalition Yewwi Askan Wi ou bien Taxawu Dakar ñoom dañu choisir Barthélémy Diaz comme seen candidat pour la mairie de Dakar gisuma woon lan moo tax soxam war a mën a dem créer une liste parallèle pour fragiliser léegi ma jeexal ci benn bokk yaakaar. c'est que tout a la la stratégie. de Benno Bokk Yaakaar au niveau même de plateau. oui xam nga Macky dafa xam ne day fi su jël les listes Qu'est-ce qui explique la liste parallèle de Mame Mbaye Niang là-bas Qu'est-ce explique la liste parallèle de Mame Mbaye Niang Qu'est-ce que loolu ce sont des yoo xam parce que on dit que c'est Macky qui a la ces listes là mais pourquoi il y a d'autres listes que Macky ne ne bénit pas. mais c'est des stratégies parce que là Benno Bokk Yaakaar pense que ñoom mën nañu fa gagner malgré les listes dafay bàyyi listes yi foofu. là où pense que ne soo amee même des listes parallèles c'est Benno toujours qui wax dara. mais là où il pense que ne en réalité suñ fa créé benn liste parallèle c'est là où Macky est en train de sévir sévir d'accord Cheikh euh, suñ papa Ndiaga Mbaye doon wooye naan xaajaloo dafa ñaaw bàyyi leen di xaajoo <laughs> pour yàlla dafa bind jaam yi te dafay bañ ñu réeroo xam nga lu ngeen mën a wax rek opposition bi bi mu defee ay pàcc pàccam rek ku nekk jël sa pàcc jaar na le Macky Sall moom la mu yore mu ngi ko dank tee je rappelle que élection bi mu tudd raw gàddu ki ëppale benn xob raw gàddu la n'est-ce pas Badara oui muy benn mooy raw gàddu raw gàddu maanaam bu ma la ëppalee benn xob mbaa nga ëppale ma benn xob gañe nga loola tax ñu indi majoritaire ki gañe mooy yóbbu ñi nekk sur la liste majoritaire mhm. proportionnel bi ñu koy séddale ci proportionnalité ku nekk sa dayoo ak la nga ca am ñu séddale ko du dëgg. Mhm. mais bii élection bi dafa amat beneen bu ci génn. Mhm. muy suffrage universel direct. Mhm. loolu lu muy yundu mooy yow ki ngay votel da nga koy votel directement du dëgg. ce qui fait que sur les profils da ciy am solo. maintenant man euh, ci ñaari plan analyser sama xalaat de manière générale je l'avais dit tantôt avant ñu egsi fii man leen opposition bi suñu xaajaloo ci seen biir ñu ngi faire le jeu du pouvoir et cette fois si personne ne va me dire que Macky Sall moo xëcc kii na ko jaaral nii moo xëcc kee na ko jaaral nii du dëgg kon lu si am rek demain ne opposition bi assumer seen problème de calcul politique des problèmes d'ego politique affaire u grandeur la mais aussi affaire u gentleman la affaire u mooy affaire générosité Souleymane Faye da doon woy naan ci benn woyam yaa jiitoog maa jiitu jiitul soo ko mënee boo juumee ñu gàgganti la mais malheureusement des coalitions ki volent en éclat commencé wul tey c'est c'est un processus qui était prévisible et ça fait l'affaire du, du parti au pouvoir. ça nous a fait perdre en 2017. aussi euh, opposition bi euh, dem nañ ñu am liste euh, waa PDS jaar na le waa Khalifa Sall jaar na le Saliou nag mënoo fee nekk comme benn ñebe ci cin ku wax nga dal bu ko tamit quand même ah bàyyi ma rek ma eggale sama waaw yéen ñëpp rek yow Saare mënoo fee nekk benn ñebe ci nag man dama Zatora Pikine laa dëkk ok li may wax man parcelle laa dëkk waaw man ñëpp yéen ñëpp su ma leen di jaay comme man bu ñu defee tong-tong bi ci nag man xale bi damay bañ ñëw ma da ngay teggi ndawal dama leen bàyyi ak ndawal li bàyyi leen maag kii nag ñeex mi tuuti merci alors li ma doon wax scénario yi ngay wax 2009 l'opposition à son say avait trouvé Benno Siggil Sénégal issu des assises nationales mu permettre ko mu contrôler des villes mais élection bi dafa am double enjeu ku jàpp ni l'enjeu mooy élection locale tey tey l'enjeu c'est le contrôle des territoires tey Dakar bu ko opposition bi ne kirtimté c'est dafa am budget dafa am dayo du point de vue politique day projeté wu sur les rapports politiques yi am en 2024 loolu ñëpp xam nañ ko mais man su may wax damay wax suma man dëkkuma Dakar voté wu ma Dakar man ba ilaa yow mi diin Pikine laay voté mais dama ne kuy ñaane sa ndono sa deewin ñaaw tu as parfaitement raison Khalifa am na fu mu doon toll moo waroon jël responsabilité am un ba d' accord ak yow soit mardi nii c' la encourager sommet Africité ci élus locaux yi ñu dajee Maroc gis nañ ni aussi am na taxawaay bu am ci Khalifa tey nañ Khalifa Sall mu gore te place ba ñu dénk ko mu nekk fa bu dëgg même sax ci bi yoon ne dañuy téye Khalifa Sall jël nañ seen alal sax def ci du dëgg waaye ni ñu mën a waxee ni soo am war di di jaajëf noonu la ñu mën a waxee aussi Barthélémy Dias jaajëf. personne kenn du ko dit. Badara Badara après tu tu non damay dëggal li nga wax. chroniqueur yi ñooy gën a wax invité yi de aussi. dinaa ñëw ci ñëpp. <laughs> mais gis nga ni ñu mën a waxee loolu. Mhm. Mhm. Barthélemy Diaz a risqué sa vie pour Khalifa Sall d' man dama koy wax dama leen wax Khalifa Sall son style pour man du style opposant soit il est diplomate wala il est d'une autre époque ou d'une autre école. Mhm. mais lu Khalifa Sall manqué woon ci cëfër cëfër wala ci yëngal barte moo ko amoon. et la dernière fois tu vois Aïssata Tall Sall Bamba Fall Khalifa Sall Barth sax boo doon xool. xalifa bu yëngatoo sax jéem a dem ci kanam sax ñeme sax ñi ne candidature ñu bëri il la porté ce combat même suñu génnee parti socialiste ñu génnee wut ay dissidence pour Barth c'est parce que moo xalifa ñoo si ànd mhm. Barth a été toujours loyal ci xalifa comme ni ko war di di nekkee lu dëgg mais aussi ak man man waa jàpp ni élection locale yi Cheikh Oumar ak man mi nekk ak yow waa ak yow man mi jàkkaarloo woon ak juge Lamotte waa yow man ma demoon ca kanamu àtte ba yaakaar naa moom looyoo te kenn mënu koo lim. mais tëbaale ma ci. mais non mais man suma ma la sa looy xam nga Badara. Ah, xam naa xam nga da nga distingué ni. waaw mais dinaa ñëw ci yow na a wax man ñàkkuma client dinaa ñëw ci yow juge Lamotte man. nekk ca procès bi guddeeg ñu may convoqué. dëgg la ah donc ñuy wax loyauté nañ wax ni ñun ñëpp a été loyal. mais on parle mais mais mais Badara. Ah. ñëw si yow. man ñàkkuma client xam nga te es une valeur sûre. ñi fi nekk ñëpp ku si nekk on s'est croisé. muy Moussa Diakhaté muy Nafi muy yow et cetera xam naa la bi na Bocoum di taxaw xam naa ses principes xam naa sa taxawaay et je salue ton courage politique parce que nekk nga conseil municipal dans une ville comme Dakar wàññi nañ budget Dakar bi ba ñu ñëw si waxum weddiwu ma ni dem nga témoin et puis ku mu neex faral fu la neex la vie c'est de l'ambition ku nekk am nga sañ-sañu bokk man war naa am ambition ne groupe des médias buggaan na ñëw mu teg affaire ci table yi nañ jaay action je vais DG ma ko empêcher l'ambition elle est il faut que ku nekk xam sensu sacrifice moi je vais pas prendre Khalifa Bart dóor ko ci kaw soo am nii soo am dóor ko ci kaw Bart pour man ils ont une responsabilité unique ñoom ku nekk teer say ambition ñu ñu booloo seen biir buñ ko defulee ëllëg si la ville de Dakar leur échappe échappe à l'opposition dites-vous que ci seen problème calcul politique et sur vos problèmes d'ego vous avez facilité la tâche vous avez ouvert un boulevard au parti au pouvoir il faut ngeen jël responsabilité boobu. revenant au PDS malheureusement je le dis le PDS c'est un patrimoine politique moi je le dis billahi dangay ngay dem fanay nga ñëw fekk fa ay pas yoo xam ni carte li la ñëw parti socialiste parti socialiste moom la ñu xam. dem naa Touba benn kër benn paa tapp fa fotaab laa 1988 moom xamul sax ku dul wàdd et la preuve da ngay dem ci élection Zator li ma du ko wedd da ngay ñëw gis ñu ne la mboq mi. Mhm. kon tey responsabilité Ablaye Wade Nafi Diallo il est il doit être au-dessus de la mêlée. ñi fi may ma rek ñi fi nekk ñëpp ci politique waa dégg ma rek dinaa ñëw. man yàlla dafa def. termine Cheikh. Ablaye pour man dañ ko waroon joué beneen rôle. kenn joué ko. waaw waaw après nga ñëw ko joué. non respect Nafi tu viens du parti démocrate waaw waaw d'accord mais tu viens du parti démocrate. yow yaa ko gën a xam. xam nga Ablaye Wade xam nga ni kenn mënu ko joué loo rôle. man la yàlla dafa def yàlla dafa def d'accord alors. Euh, nee na balaa ngay. waaw termine mais mais nee na su ma commencé wax au mentoron. nañu ma bàyyi ñu ma eggali waaw man damaa kuul sama kuul boobu ba léegi maa ngi muñ toog toogaale. bàyyi bi muy wax nanguwul kenn interrompre ko day continuer ci logique donc continuer ci logique li may wax war naa ko wàcc war naa ko si ñëpp je veux dire le PDS c'est un appareil politique le PDS c'est pas un petit parti élection locale 2014 li PDS remporté réussir ko ci ay ville uh-huh. booy xool sax ñii ànd sax da ngay gis ñoo xamante ni ñoom seen feeling ànd na soo gëmmee si gisa bët les alliés naturels du